Euh, leneen li ñu waxtaade mooy domaine agricole communautaire yi nga a président de la république euh, teg na pour Sénégal Dakar am dagam bi nga un ni moo euh, Sangalkam région de Dakar

Nous avons un projet pour maintenir 45 départements mais day am maison mais ñu démarré ci 8 yoo xamante année Dakar dinañ démarré Bossam en 2021 2021 nous ku c'est dans trois mois comprendre l'impatience impatience jeunesse de Dakar parce que amuñu euh, actuellement infrastructure ba nga xamante ni mën mën nañ ci def seen activité loolu moo tax ñu boole ko suñu ay urgence leneen li tamit mooy ñu gërëm bu baax ndaw ñi seen engagement ci xeexu Covid bi gis nañ ni dans tous les départements de Dakar jeunes yi yëngatu nañ jàpp nañ ci combat bi contre le coronavirus et que jàpp nañ incha allah bu ñu continuer sur cette lancée dinañ ci am ndam Euh, di leen tamit gën a ñaaxaat parce que gis nañu tamit engagé wu nañ ci xeexu inondation yi fan yi ku nekk gis na euh, yenn localité yi ci dakaar am na ndox ndox mi xaw na leen sonal ñu jàpp ni ndaw ñi war nañ ci gën a dëgëral seen taxawaay am naam am nañ ci taxawaay bu dëgër loolu moo tax tey ñu décidé accompagner leen ci matériel yi nga xamante ne dinañ ko soxla pour investir le terrain ñi ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen jox rendez-vous très bientôt di leen wax ni tam ministère de la jeunesse seen ministère la euh, tëjaluñu kenn bunti yi déjà suñu service yi gën nañ leen jege mais également ministère bi seen yëfu bopp la ngeen jàppee ko noonu di leen gërëm di leen sant merci beaucoup